Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf li am ci réew mi journal Source A nee nañu mooy faf ministre du transport di maître Oumar Youm moom la ab cortège sam def accident ba ñeenti nit jële ci ay gaañu-gaañu ñu woo benn ambulance mu jóge Ndar ngir dem xittali ji blessé ya ambulance ba moom it ñëw ba ca yoon wa defub accident ca boori Ross Béthio ba fa ñetti nit benn wata particulier la mbëkk ñetti nit yeneen woon ca wata ba faatu fi saasi l'observateur nañu na mbir ya demee moo di ministre transport di maître Oumar Youm moo àndoon akub délégation doon def ab tournée ci biir réew mi démb ci yor yor gi ñu bawoo njum doon ñibbi si Ndakaaru oto bi jiitu jiitu woon ci cortège ba doon moytu Abdou Daan yeneen wata yi ko toppoon ci cortège bi ñëw fekk ko fa ca la wata yi jaxasoo accident am ñeenti nit jële ci ay gaañu gaañu yu métti un blessé grave ak être mort couloir de la mort mooy li enquête dina kay gis ci gëstu bi mu def tey ci suba jëmee ko ci hôpital réew mi ñàkk gu hôpital réew mi ñàkk ay spécialiste tax na ko fi amee yenn feebar yi war a faju rendez-vous ñaari semaine ñetti semaine juróom-benn semaine jàpp at la ñu lay jox loolee lépp li ko waral moo di ay spécialiste amul ci réew mi firndeeli enquête nañu moo di Sénégal soxla na téeméeri neurologue ak ñaar te ñaar fukki neurologue kese ñoo am ci réew mi ginnaaw paj mi njàng mi ci Sud Quotidien mi wax ne établissement privé yi ci mi ñoo ngi dànkaafu état bu Sénégal ci ubbiteg école gi ñoom établissement privé yi xamle nañu ne bu état bu Sénégal bëggee ñu jëlale ne étudiant nañ leen di fay seenub xaalis sud nañu ak waroo am na ci boor bi état bu Sénégal warloo ak établissement bi nee na fukki milliards ak ñaar la leen amel établissement privé yi na ëpp na ko fukki milliards ak juróom-ñett la journal bi nañu bu ñu ko lijjantiwul nag dana taq suuf ci élèves yi am bac te ñu war leen a orienté bu Sénégal fay xaalis bi mu leen amel ba mu mat sëkk Cheikh Oumar Anne coowal pétrole li ñuy tudd ko tuumal rakki président Macky Sall mu di Aliou Sall coow la wunni war na ci yéene kaay Le Quotidien nañu wax ji mu di débat bi am ci pétrole be gaz bi tàkkat na day naagal gi doyen des six di day naagal ci dossier bi Mamadou Lamine Diallo ak Abdoul Mbaye ñoo ngi koy ñaawlu Seydou Gueye ne ci journal bi lépp jëfi politique la rek ak mathématiques yi politicien Le Quotidien tegal ñu ci ne waa dikk division investigation criminelle enquête bi ñu doon def ci yëf yi noppi nañu ci bëjël seen rapport jébbal ko procureur de la République léegi nag moom procureur de la République di Serigne Bassirou Gueye moo yore ca gël gu yam moo ca des l'observateur mel na ku naan ñu wax ji des na ndax procureur bi déchargé na Aliou Sall ci coowal Petro-Tim ak BBC procureur bi x lay wiise dossier ba nag léegi jox nañu ko doyen lu toll ci ñaar fukki nit ak juróom benn L'Obs nee nañu jot nañu leen a déglu ci enquête bi ñoo ngi waaj it yabal ab commission rogatoire ci Europe ngir mottali enquête bi ab enquête ak taxaw sedd la journal direct info xëy def ci société bii di Grimaldi li ñu koy tudd ci coowal dorog bari na lool ci ni ko yéenekaay bi waxee ne ñeenti toni ak genn wàll yi ñu ci Allemagne turu Grimaldi ma nga ca drogue bu bari bi ñu jàppoon ca porum Ndakaaru turu Grimaldi ma nga ca direct info di laaj lu tax Grimaldi ba tey Grimaldi saa su nekk Grimaldi ndax jotul kilifay Sénégal yi tere Grimaldi réewum Sénégal la na nañu daanaka loole mooy bëgg-bëgg waa forum civil ne Birahim Seck ak ñoñam ginnaaw bi ñu félicitation wi doanub Sénégal ci liggéey bu rafet bi ñu def ba teg loxo drogue bi ñu toll ca porum Ndakaaru ñoo waa forum civil li ñu sàkku nag léegi mooy Grimaldi ak terminal yi ñuy tudd ci yëf yi teg leen ay daan nañu daanu Rodo di lesbienne bi ñuy mbambu ci réew mi yéenekaay bi xëy na topp ay tànkam wax ñu lu bari ci moom doore ko ci bés bi bàyyam yi génne Awatou Rodo ab lesbienne la xeetu jigéen yi muy doxaan nag moom Awatou Rodo l'observateur nee nañu mooy jigéen ñi seeni jëkkër faatu wala jigéen ñi sëy ba